woo koo xam ne ñaare gis naa ne ñi gën a bëri ci ñuy jokkoo ak soxna si mi ci moom lañuy jaare ma woo ko ndax booba fekk na ma dégg ne soxna si njiitu mi defal na ko ay nit yu bëree bëree bëri mu jël ay nit bokk na ci ñoo xam ne sax ci daawa bi lañ bokk am tawat mu jël leen yóbbu leen fenn ba ñu wér ñibbisi te kenn yëgu ku ko yég ñooñu ñoo la ko wax ma ne ma ne waay si imaam Ali Ndaw dafa tawat te tawat bi niñ ma ko nettalee xaw naa xoot ma nga faan est-ce que doo fexe ba jot ci soxna si xamal ko ne ko suñ sañoon mu mu génne ko réew mi mu ne ma kon déglu ma ma déglu ko matul 15 minutes ñu may ma ma daane rek matul 15 minutes mu woowaat ma ne ma waaw mu woowaat ma ne ma soxna si sant na fondation bi. ne nga jox leen numéro ku dend ak imaam Aliou Ndao pour ñu dem fa xam lu fa nekk ma jël numéro Ablaye ndaw jox leen ko numéro Tigo bi ñu woo ko ci jotuñ ko ci ñu waat ma ne ma ki nga ñu booleel mu mënuñ ko jot man ma woo Ablaye Ndao ci numéro orange bi jot ko ma ne ko am na ñu la bëgg jot te mënu la jot mu ne waa parce que ñu ma doon woo dañoo bëri mais maa ngi leen di xaar ma woowaat leen ne leen woo leen ko ñu woo ko jot ko mu wax ak ñoom wax ak ñoom ba àgg ci ñu jox ko soxna si ci boppam mu wax ak soxna si lu yàgg bi jataay ba jeexee mu woo ma mu ne ma soxna si sax woot mu jina fi wooteel boppam waxtaan nañ fi waxtaan wu yaatoo yaatoo yaat nee na ñun lay déglu fuñ bëgg mu yóbbu ko fa na ñun lay déglu fuñ bëgg ñu ko fa ma ne ko loolu de gëm naa ko ndax gis naa ñu ko defal foofu laa jeexale ak Ablaay ñu fanaan bët set heure ba jotat ma bëgg xam fu mujj ma woo ko ko ablay fan ngeen mujj est mu ne ma est ce do fi ñew ndax mu la fi ñew mané ko an kay su ngeen bëgge ma ñew fu ma ñew mu ne fi ñew kay dana ba, ma dal di genn jël sama auto dem fan bima démé yalla dogal man ñu bàyyi ma ma dugg ma gis ko biñu bima genné ma ma dem gi da dafa commencé am ciow am na ne nañ dem am na ñu dem légui nak dañu bëggoon am sa xalaat mané man dé wax sa wax dëgg yalla suma ñu mu dem su ma sañoon dañ koy bàyyi mu dem l'essentiel mooy seet leen fu ngeen bëgg mu dem fa mu dem fa parce que ki ma le kii kii ñi kii kii ko dig yóbbu yóbbu na nit fu nekk ñu ne ma kon baax na jërëjëf loolu ñu dëgëral parce que am na ci ñun ñu gisoon lool am na ñeneen ñu gis loolu ñeneen am na ñu wax ne bu mu teg tànkam France ñu bàyyi man ma ñibbi ca suba sa ma woowaat ne ko fu ngeen toll mu ne ma dañoo dellu gannaaw ndax léegi non seulement Ni ni ñi d'accordoon ci dem gi sax amna ñu yak seen xel amna ku fi nañu buñ ko France parce que suñ ko yobbu France dañ koy ray buñ ko France fils sax wóorut ndax bi na fi amna ay signe maçonnique fofu dal lañ tollu. man len kon na man pexé jeex na ci ndax man loolu mënu mako régler la démé ci suba sa kam waxone mo wax ji def ay def ci def ay euh, affaire wax ko wax li mu waxoon ñu commencé li doon def bët set ñu ñu génn àdduna lii mënu ko ñàkk a ndax dama ko dund ah li nak dafa gën dafa gën ci mom yàlla lu mu def mo gën yàlla lu mu def mo gën mom dal ñun ñu am problème waye mom amul problème incha allahu amul problème incha allahu amul problème ndax mom jullit la won bo xamné bu yaatu dënn la jullit yu bëri nangu woon nangoon na seen njullit te daana jëflante ñoom ci sellal te ku mas a taxawu jéem na laa taxaw moom laa wax njaboot gi keroog man leen taxawu ko ñun la war parce que mënatul taxawul boppam te ba mu mënee taxaw ku ku mu war a taxawu taxaw na la suñ suñ ko taxawoo baax na suñ ko taxawut buñ demee yowmal xiyaam buñ layeeg moom mu yey yal na ko yàlla jégal yal na ko yàlla yërëm yal na dee di noflaay ci moom njaboot gi yal na yàlla wuutu ci ñoom yàlla rek mën a wuutu ci ñoom ñu am liñ bëgg adduna bi dafa day waar day na waar waaye yàlla yàlla na nga wuutu imaam Aliou Ndao ci njabootam yàlla bu ci xaar kenn bu ci bàyyee bu ko bàyyee kenn yow rekk ci man dara yow doo nga leen yéene jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah